sëriñ soy bu mbàkke doomi bamba borom wilaaya ga ni roog baayam ba borom jaloore ya borom tawxiid ja suufi yu bay wane njubug lislaam ja ponk bu dër ba woon ca sowu Tuuba ka xam kabuur yàlla toroy yonen ba sayxul murabbi xayra man yuraqi man aalehu yejloo sada almutaqi di ko boole njabootu sëriñ soxna bu gépp kenn ku ne ñu toog ci sa ëtt di siyaare te di la ñaanal tey ñaanal sëriñ bi sëriñ soxna bu su ma mën defal ngërëmal yàlla sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci jataay bi wax dëgg rafet na lool ni nga ko waxee léegi bi nga koy ubbi xam naa ni ñu ko mën a am bariwul de du mën a yow mën a am daal wax dëgg ñu ko mën a am bariwul de <laughs> waaw wax dëgg keppaar gi sëñ Sam bi nga dajale fii rek waaw moom moom keppaar gi moom nga dajale fii kenn ku ne fàttali ko ne ci sa moroom waaw man nag euh, ni nga ko waxee léegi sama sama sëñ Sam bi moom moom may war waaye ñi ma baali loon ñi ngi nii toog sëñ maam Balla mi nga tudd léegi sëñ Mouhamadou Boussa mi sëñ Abdoulaye Diakhaté mi sëñ Abdou Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko waaw moom it jaar naa ci loxoom ñoom ñoom ñoom mooy sëñ Mouhamadou moom ba may andi Touba Mbéyel la ma jële andi ma ci fii ci kër Touba am naa fi ay fan booba xam nga soxna Ami Abdou boobu mi ngi foofu boobu soxna Fatou Gueye ma nga fa soxna Bali Muntaxa mi boobu ma nga fa am naa fi ay fan foofu mu doog ma andi ci moom bi muy indi it saal saal saal bu njëkk boobu bâtiment coquillage bi waaw ko fay photo yu ñuul yu yu weñ moo fa nekkoon boobu xam naa du ma takk année bu xam naa du sore ay soixante soixante neuf soixante dix xam naa de waaw du sore xam naa ne maa ngi fàttaliku bis ba mu bis ba mu fa njëkkee ba ma bi ma sëñ Maodo indee ba dem rek maa ngi fàttaliku eh, damaa fekk sama loxo nii ci fauteuil bi nii fekk weñ la mu toog ci mu toogee nag mu kepp ma sama loxo bi fii mu ñeewantu ko daal moom ba nga xam ne waaw <laughs> boole ma ak seen seen la ma boole daal booba mu yóbbu ma boobu dispensaire bi ñu ngi ci xaayal ci fii ci marché Ocass bi nga xam ne foofu laa moom fa saasa bi may gànn rek moom foofu lañ ma yóbbu moom daal daal daal daal koy ñaw ñu ñu doog ma andi andiwaat ci kër gi. mun mu metti lu ko ba nga xam ne xam naa cofeel gi mu am ci man moom daa mel ne foofu la jógee ba <laughs> waaw ñeewantu ko lool lool lool waaw di laaj loxo bi rek waaw am naa fa ay fan nag am ku ñuy wax ku ñu tudde woon sëñ Mahamadan ku ñuy wax Mahamadan Diop mbokkum sëñ Mahamadan la mooy mu jox ko seen elaaji mu indi ko mu fekk ma fa ku ñuy wax daan jëw waaw eh, ñoo fa boo ko nekk eh, noonu daal moom mooy kiiwe ba ba ni ma dalale moo ma dalal moo ma dalal eh, ginnaaw bi mu jox ma Abdou Ndiaye moomu am naa ci moom ay ay kii lépp kay <laughs> sëñ Mahmoudou Bousso bi daal ci ba seere <laughs> mais jëlee loxo Abdou Ndiaye moomu nag sëñ Mahmoudou Bousso mi la ma jox moom nag lépp moo ko def ci man moom sonn ci njàng mi lool waaw guddeeg bëccëg waaw mu jàllal ko lu ne waaw moom it ngay sant sant bu baax ndax lu alxuraan ku ko def ci yow euh, dañ ci sant solution bi waaye danañ ko sant moom mii waaw sëñ bi laa jaxate mais moom itam daan def léeg-léeg bu bu ñëwee bu sëñ daan bu sa amee gàllankoor wala mu génn mu mu dénk ko daare ji bu ko defee moom it mu mu mu mu yor ñu ay fan doog delluwaat ci leneen loolu daal moom mooy njëlbeen gi